non non ah gars yi loolu la ñu wax non non non tegtal la rek ak nit ki ñun lay tegtal la rek si làmb noonu lay demee nan lay tegtal si làmb nga am looy def loolu la du leneen non non wan wàccu mu jour ba ma lekk sama sama jour ba waaye sama dibi bu baax di wàccu wàccu wu ma de waaye wàccu wu ma laa la wax xanaa déggoo ma lan laay wàccu waay parce que ñaari nekk ci biir géew lan la xam nga tey jii Balla Gaye euh, grand frère bu ma joxoon cër la ah. bu ma joxoon cër mhm, mais cër bi tàgg na ah. bis ni ki tey ndax xamul tax lu waral lu ñaaw cër bi tàgg maa ngi ñëw de un waa CNG laay waxal ku am licence warta dugg si géew bi yaa may te un loolu laay wax lu tax Balla Gaye dugg si si si enceinte bi bay yor ay bagaas ba bëgg ma kaa laalal xaaral ma expliqué rek maa ngi ñëw tey jii ak num mu mënti demee Balla Gaye billaay war naa sant euh, lii bi nu mu tuddati euh, war naa sant bum bi ndax bàjjen bi ma yoroon bàjjen bu ma yoroon wallaahi lazim du caaxaan ci kawam laa jëmoon billaahi loolu jaratul sax wax si vidéo bi gis nga ka bàjjen bi ma yoroon bi mu saagee bàjjen bi ma yoroon bàjjen bi ma yoroon waaye man dinaa wax lu dul dëgg man lamb damaa jaral may fen yow yaa wax gaynde ko la ba ma ko kay wax dama ne ko buy ma boobu xeexaguñu ñu dara ñu toog nele mun mu mun moom déglul déglul rek déglul man tudduma ko taasuma ko you know sama yoon nekkul si moom li jëntiwuma ko ñu taxaw nele man ak seex ñoo taxaw nele mu ne seex jum Omar kan seex naka waaw maa naka eh genn gu màgget gi man maa ko wax loolu man lu ma wax man ci naan lii laa wax dama koy delluwaat man du ma naa fexe du ma fenkat ma naka gaynde gu màgget gi maa ko wax loolu mu ne ma zeta recette bokku ma ne ko li ma la wax daa. mu ne la zeta recette bi bokku xaw ma li muy wax noonu xaw ma zeta recette bokku nangam nangam ma ne ko yow li ma la wax daa aay <laughs> non du cokkaas li ma ko wax loolu dara aayu. ah dala ne dala ne Omar Kane Cheikh yow nga ne ko gaynde gu màgg. waaw si ànd ak wa ko Omar Sakho. comme ni non du ma ko waxuma moo tax ma ne ko gaynde ndax ma màgget gaynde gu màgget gi laa koy oowee. ay ah, lu si ne <laughs> lu si ne. ma ne ko gaynde gu mag mu ne je te respecte beaucoup ma ne ko ah li ma wax nii lan moo si aay mu commencé nekk vidéo ma ne ko pourtant damay mbalak rek wallahi lazim mu commencé commencé ma ne bi yow hey lu la neex defal ma dugg génn dem di lii mu yor benn nen lu tax Balla Gaye mu bàyyi dox ba ñëw ba si ñun comme dox tuuti ba ñëw si digg bi bëgg ñëw si man image yëpp a ngi fi gars yi nañ koy gis. non non attends ak nu mu mënti demee gis nga mooy li may wax rek Balla Gaye foogoon naa que nam dépassé na loolu wallaay laajim may nam. rakam mooy bëre. waaye hee. du yaa mag du bëriwul. amul licence bëriwul. mais déedéet ma yëngu. mais Balla day bëre warut dugg si géew bi du yoon. c'est pas normal c'est normal bu ma ko gaañoon tey du mujj fen du yoon te wallaay laajim dama doon ko gaañi beeg bi ma yoroon wallaay laajim dama doon ko ko dóor jëmi bi moo tël sa moo jëmi bi laa dajanteel ba booy bi di xëpp suuf. maa ngi ah, maa ngi siif si kawam maa ngi siif si kawam di ko joxoñ. jëmi bee ko sëbee nga di ko joxoñ nii mu may xool moom mu may wax ma koy wax. yéen démb nee xoolante rek mais moom du ñu du xam na ma xam. Ah, xamante nga waaw lu ñu wax maanaam lu ñu wax maak moom mënoon naa bañ a ñàkk sama digganteeg moom muy maanaam waxi dépassé ay saaga loolu loolu amul benn sens sa rakkaati rakk nga taxaw ak moom di saaganteeg moom kon loolu ci géew gi man man du ma fen yow ah. eh man wallahi lazim billahi wallahi taal laa la giñal du ma fen démb ne xooleen deret ñëpp mais dama ko naroon a gaañ ndax waroon a dugg si géew bi de un googu pourtant lamb ji xoolal ñoom saages ku yor ci mbukaam day dox ba ñëw ba si ñun sànni ñu dara daw dem nga pour am ñun duñ def loolu suñu yoon nekko si loolu bi man la ko bëggoon a këpp bi may dool di ñëw daay daw daw ba xaaj nag ma ma daw romb laalu ma. d'accord léegi. mais loolu yëpp naa bañ a làmb mën naa. mën naa ñàkk si làmb. ndax làmb euh, foog reer la man si lu ma ko jàppee. maa ngi ñëw rek foog reer la si li ma koy jàppee mais ku daanu rus. <laughs> léegi nag loolu laay leeral mais ma ma ñëw non kan moo wax loolu Fils de Balla non non bu fekkee Fils de Balla laa ko wax amul lenn lu ma si tontu naka ndey mbi gi génn tontu non non non non génn wax. yow mosoo <laughs> wax te ba ci tontu mooy Fils moom moom amul lu ma koy wax ndax. xamal te amoon lu ma koy wax waxu dof lay wax du ma ko déglu lijjantiwu ma ko xaw ma si moom lu bëri xaw ma ko sax isa dégg nga ma noonu laa mel quoi bu muy bëree moom bu muy bari man bëreewu ma anyway amul problème lu mu wax rek jéggal naa ko ka ndax xam la laa jàppee dof man man man man sama ji bopp lu mu ma mënta wax anyway amul problème dof laa ko jàppee pare naa si moom waxatuma si loolu kër Balla dañ fa doon def. kër Balla <laughs> man lan la kër. lekkoo ñàkku Balla mosoo lekk ñàkku Balla. Oh. ah waxal rek yàlla yàlla yàlla yàlla. mais ma ma ñëw mais ma ma ñëw xam nga tey jii. xam nga tey jii euh, li ngeen di wax nii dégg naa. waaw dégg ah, boo déggee maanaam dégg naa mooy mooy li ngeen wax dégg naa. dégg naa tey ji uyu ma nag euh, ñu wax dëgg bi tey ji gis nga sa Balla Gaye bu mu gàddaayee di wut wàllu di wut wàllu di wut wallu laa la wax. waaw maa ngi lay dégg ay man la woo ak seex bu mu gàddaayee laa la wax. at déglu attentivement mu ooñu bi ñu oowee sama yaay ngi ne le moom laa ko jox téléphone. déglu ma bu baax sama yaay laa ko jox téléphone sama yaay ma bu fa dem ma ne ko non ma ne sama yaay li ma ko tontu laa lay tontu ma ne ko non oo nañu léegi yow nañu dem ñu xool lu moom ñu ñuy doyee sama yaay ne moom bu fa lekk bu fa naan ma ne ko merci beaucoup loolu moom na sa xel dal man moom xam nga ma ànd ñu dem mu commencé wax naan instant yi nangam nangam séeréer yi nii nangam nangam. patati patita <laughs> nangam nangam si non day leer non day ñaaw day leer nañ ah, man lu may non day leer nañ déglul leen ma yéen a ma laaj waaw loolu maanaam bu bu àgguloon fii du ma ko wax ba koroog may dee ndax man borom sutura la man du ma xaaw a suturay jàmbur sa dégg ma mm. mu jàpp wax wax nangam <laughs> nangam patati patita ma jékki-jékki naka sa ñun ay mbër nañ bëri ndaw nañ boobu ma ay bëre simple maa ngi si dégg dëpp gi di bëri bu baax mu xam ne kii champion la mu xam ne kii day dem xam ne kii am na lu nekk si moom wala mu ne xam na ni kii am na ñu koy ñaanal ñu ñu mën a ñaan xam nga mbëru mag day xam loolu léegi mu ñëw lu Balla Gaye fii lay gaare si almeer yi kon xam na fi waaw eh, dam noppil ma ñëw otaam bu ndaw bi buy ñëw otaam bu ndaw bi lay jël eh, otaam bu ndaw bi lay jël mooy bu mel ni genre eh, lii Euh, voilà bu ndaw bi lay indi fii man ma ñëw yéeg yéeg si kanam seex yéeg si ginnaaw benn xale bu jigéen ooga deglu rek noon day leer man day damay leeral nañ benn xale bu jigéen ooga mu ooga ne nga yow laay déglu mu ne ko hey maa ngi pare xaaral maa pare coupé ko ma ne ko mbër jël ko rek nga wax ak moom mu ne ah ki damay sonal ma ne ko ok mu commencé léegi nu ñuy def nangam nangam pati bi may bëreek brise de mer si nañ yàqoo waaw déglul euh, bi ñu yéegee si oto bi mu ne ñu bi yéen rek laa yaakaar ginnaaw yàlla instant bi nangam nangam wan ñu photo boo xam ne dafa génne fii benn buum yaa may dégg ñun xolu ne na ñor am na ñoo xam ne mën nañ kaa ñaanal ay séeréer nañ ñun lu ñu mënti am séeréer mooy suñu lépp est-ce ma man lu ma mënti àgg sama àdduna tey séeréer moom fa àggal ndax ginnaaw yàlla ñoom man amul ku may ñaanal ku dul ay séeréer dégg nga ma mm. dem joytu fa ñu ñaanal ka ba yàlla suñu borom teggi ka ah, li ka daloon yaa may dégg déglu ma bu baax li may bëgg wax ñu teggil ka li ka daloon xam nga lu leen def war hmm? war la leen def du mu fay def ndax ñooñ dañ ka fajoon rek dañ ka fajoon rek mais li mu diggante ak moom defu ko kon am na wax yoo xam ne ñun dépassé nañ loolu mais dëgg bi moom laay leeral pour mu xam ne ni maanaam bi may dem fils de Balla bi may dem kër Balla Gaye lii moom ma yóbbu woon moom moo doon jooyta wàllu noonu la demee jéy na voilà naa lool Fils de Balla. Euh, Sa Thiès na da lay <laughs> Sa Thiès man lay encouragé moo tax ma la borom gémmiñ guy nàcc di wax di wax jàmm. si la non foofu moom du ma fa àgg waaw bu génnee wax dinaa fa àgg au ma leeral nañ. waaw léegi léegi nee na yow da lay encouragé boo amaatee beneen combat yàlla na la yàlla may ndam. moom kay laay encouragé saa kees moom na gëm borom na gëm yàlla na xam ne ndam lii ndam lii ak moo leer nañ non du dem génti sax mais ak nu mu ti demee mooy maanaam na gëm yàlla rek xam ne ndam lii si kàttanu suñu bur maa koy muurloo ah na gëm yàlla. mais ñoom nee gaal gi damm nañ ko karaj. waaye ban gaal wax naa la gaal googu. xanaa déggoo ma a gaal googu nee naa la assurance la bu ànd ak dal loolu tey rek bi ma dajeeg paa bi loolu la ma mu ne ma dot dotaat naa ko ñaari buum ah. Ah, kaabal yi quatre la woon léegi def na ko six kaabal <laughs> pour mu gën a dëgër. ah bon waaw nga jëmaat. foofu nga koy seel ba tey wala da ngay génn. Ndiasse non mu ngi géejewaay ba léegi. ba tey ba mu ngi géejewaay. loolu wax nañ ko pare. waaye xanaa déggoo ma wax nañ ko ba pare sànq nee naa la man am naa ndam xanaa déggoo ma man am naa ndam bu yàgg. mu ne. nee na ñaar a des géej kan moo fa ne kan. waay waay Balla Gaye génn gu màggit googu jom lu ma koy doyee ah non mu yor licence nga yor licence. non ba soxlawu ma Balla Gaye. koo am naa droit non. koo soxla. soxlawu ma Balla Gaye. Balla bi boo ko daanee dañ naan màgget nga daan. dañu waxante dëgg. kon koo soxla la dëgg. yaa may dégg non. non man waxuma la dëgër. la dëgër samp.